yi fi teew yépp di ñaan suñ borom tabaraka wa taala yal na leen yàlla sàmm yal na leen suñ borom dëgëral yal na yàlla guddal seenu fan ba li leen mag ñi bàyyee ngeen di ko sàmm yàlla bu ci dara suut barakat Cheikhul Khadim ñoo ngi ñaan bu baax ngeen yóbbu ko fu gën kawe fa mag ñi doon mébët boo defee nuy jëkkante ak waxtu wi rek di yëkkati ay kàddu muy kàddu yu fàttalante rek su jamono tollee fii mu tollu laaj na bu baax a baax ñu delluwaat xoolaat dundinu mag ñi ñu exposé waat ngir mag ñi fàttalikoo ci gone yi jànge ci ndax mag ñi dañoo dund dund gu sell dund gu barkeel yàlla def nag nun nu yor seen ndono dëkke seenub gent di dund ci seen barke di sàkku ci seenub liggéey kon war na noo xamaat bu baax a baax ñoom la leen mayoon lii nu yor ngir nu mën a yokk sunu yitte sunu diggante ak sunu borom mën a gën a rafetal itam sunuy diggante ngir gën a mën a sàmm lii nga xamante ni ni moom la nu mag ñi bàyyee ñu jëloon ci aw bind di ko fàttali rek muy ànd bu rafet bi nga xamante ni nii mag ñoo ñuy àndoon nañ te mu mel ni penc mi xaw naa jaxasoo ci dundinu doomu aadama yi mag ñi nag bu daan toll foofu am na lu ñu ko daan defare ak dund buy bëgg a yàqu am na lu ko mag ñi daan defare muy jikko jikko nag yar rek moo ko mën a def ndax doomu aadama mboole jikko yi ci bàyyi ma mi ngi ci doomu aadama suñ ko yaree mu mel na war a mel suñ ko yarut mu dem ba yées bàyyi ma te Sëriñ Tuubaa bañ ko wax ni ko ndaw luñ yarut mu ne bu màgget di mag mu xamadi rek yooyu nag noonu nu amoon ay bind ci sun mag ñi nga xamante ne nii ñoom lañu suñ borom wërsëgaleen ñu bàyyi fii itam ay résultat yoo xamante ne ni kenn ku nekk ci ñun war naa teg bëtam ca loola jooy li yitteem itam jëmale ko ci loola ñu gis ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defar jikko rek moo ko fi indi woon innama bu'istu li utammima makarimal axlaq sun borom bi mu koy yónni mottali jikko ju rafet moo taxoon suñu borom yónni ko loolu itam Sëriñ Tuubaa liggéey ca liggéey bu am solo boo xamante ni àdduna bépp seere na ko ñun nag ñu am ci ñu nu jege lool doon suñuy royukaay doon suñuy kilifa doon suñu lépp nu war a jànge ci ñoom lu bari muy a Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Lamine defarub sëriñ Tuuba la ni sëriñ bi bëggoon nu mel ni noonu lañu mel ni sëriñ bi bëggoon ñu mel ni loola la yàlla dogal ñu mel ko waaye ñu dunde ko dundin woo xamante ni àdduna war na ciy jàngi waxtu ci nekk ci seenug ànd ci pas-pas ndax lañuy bokk ci wàllu deret moom suñ borom def na ko ba pare loola booleeg suñ borom ma suñ borom mooy tànnal nit ay bokk waaye nit tànnalul boppam ay bokk loolu suñu borom a koy def waaye ba ko suñu borom defee ba pare nag la leen ca suñu borom sant ci ak rafetal loolu lépp matale nañ ko muy dundin wu am solo woo xamante ne ni mat naa bàyyi xel ndax loolu mooy doxinu yoon wi te it yoon wi loolu la soxla te mel ni booy xoolaat jamono di sëpp dangay gis ni am na valeur yoo xamante ni ni ñu ngi koy ñàkk ndànk-ndànk duñ ko yëg nag ndax xëy na importance ba dëgg-dëgg wala njariñ la dëgg-dëgg walla xayma ba mu amoon dëgg-dëgg dunduñu ko moo tax buñ koy ñàkk duñ ko yëg waaye buñ demee tuuti ci kanam dañuy xam ne ñàkk nañ lu rëy loo xamante ne nii mënutuñ ko daboo fenn fu dul rek ñu dellu su gannaaw xoolaat sunu dundin ak ñi nga xamante ne nii ñoonu fi bàyyi mu mel ne Cheikh Mouhamadou Lamine ànd gi nga xamante ne ni àndoon na ko ak sëñ Modou doonte am tafoo ma waaye mu bàyyi woon mbiram lépp ci biiram waaye teewut itam nag sëñ Modou bàyyi woon ko ab cër moom ko batale woon boo xamante ne ni bari na ñu ko daan yittewoo ci moom waaye ci sëñ baar la leen daan jooyal loolu itam dafay wane rek ak nawlonte ci biir ànd dafay wane itam ak seddante ak cër ak nangu itam dogal suñu boroom ci ni suñu borom moo séddale te fenn fu nekk la fa nekk moo ko fa def ndax nit ñi ay poos lañu rek poos bu ci ne nag la ca nekk borom jiba ja moo ko ca def te nit ñi poos yi suñ borom lañ fenn fu ci ne la ca ne suñu borom moo ko fa def yàlla dogal itam ci seenub ànd mooy bi fi sëñ bii ne sëñ Moussa ci seenu kilifteef ci moom la doon joy sëñ Tuubaa fi ne doon seen sëriñ doon seen lépp waaye teewul nag Cheikh Mouhamadul Moustapha kilifte gi ko sëñ bi boole woon ak ñoom doon na ko sàmm di ko rafetal ndax ñuy nettali rek bu leen sëñ bi boolee ci njaareem yabal leen Tuubaa te ni leen bu ma leen fi gisaat mu mel ne amoon nañ yitte yoo xam ne sëñ bi mënu koo ñàkk dégg waaye sëñ Fallou daa wax sëñ Modou ni ku man yónni ma sëñ bi moom yow lay sa kilifa waaye man yow sama kilifa boo ma yónnee ma dem loola kon dafa doon wan ni kilifteef ko ñoo ngi ko doon dund ci jamonoy sëñ bi bi sëñ bi demee itam loola dañ koo ko yeesalaat takkuwaat ci gannaawam laxasaayu fas yéene ndono li fi sëñ bi bàyyi ñu jëmee ko ci kanam damay wax ne ab génération lañ boo xamante ne nii ni ñu réussir ci adduna mosuma gis génération bu bu réussir noonu ndax bi fi sëñ bi bàyyi bàyyi koo di dem ki mag ci njabootam ñeent fukki at lam muy Cheikh Mouhamadul Moustapha sëñ lu ma ca topp ñeent fukki atam manqué na ndax sëñ Modou ko mag sëñ Baara ci topp 36 ans la am bi sëñ bi dem sëñ Basiru 32 ans Cheikh Abdoulahi ay 22 ans ci la toll te ñooñu ñoo ci doonoon ni mag te lu ne ci yoon wi ñooñ ñoo ko ci def te yoon waa ngi nii tey ñun ñëpp ñu ngi ci teg suñu bët te fa tabaarakallah ca kanam la gën a jëm waaye loolu lépp it dañu xam ne rek njàmbaaruk mag ñooñu ak seenu farlu ak seenu gëm yàlla ak seenug doyloo ko ndax ñoom fekkuñu fi ay moyen te fexe nañ ba def fi dara te fekkuñu fi ay moyen waaye fexe nañ ba samp fi loo xamante ni ni dara mënatu ko dindi ku waxtaane histoire lislaam ci senegal wala ci Afrique mbaa ci àdduna da leen tudd te seenu njàmbaar rek leen ko may keroog bi yàlla dogalee li mu dogal Cheikh Mouhamadou Lamine fa mu ne woon ca Mbàkke Bari ca jolo foofu la joxe boppam si Moussa te te giseeguñ ñu doon dund itam dundin woo xamante ni nii mat naa bàyyi xel bu baax a baax ndax barab bii bi mu koy sancloo sëñ ñaan jóg bañ sancee kër gi ba pare buntu kër bi penku la féete waaye ba mu ñëwee dañi buntu kër bi nañ ko wëlbati mu jublu soowu kenn du dëkk ak doomi sëñ Tuubaa di ko woon gannaaw loola ak taalibe rek la ci doon jàngale waaye ku xam Cheikh Mouhamadou Lamine xam ne mën naa dem ak boppam sëñ bi jox na ko lu ko doy sëkk waaye ngir wan nit ñi ak taalibe ak nangu ak kilifteef loolu taxoon na mandarga yooyu mu doon ko dund ak Cheikh Mouhamadou Moussa bu ko yemale woon ci sëñ Modou rek da nga naan li ñu bokk a tax walla da koy jàppale waaye déedéet mboolem doomi sëñ Tuubaa yëpp. boobu relation la amoon ak ñoom ngay gis ba ñuy nettali ci Mbàkke Kajoor bu ko Cheikh Mouhamadul Fadel ganese ni mu sukkee ci kanam sëñ Mamba Ndiaye sax moo ko nettali mu ni moom booba xamut sëñ Fallu waaye xeesaay bi tax na mu defe ni ab naar la mu naan naar bii da xam naa ne dara jaam rëy na ndax nii sëñ Baara sukkee ci kanam ak nii mu def ci kanamu naar bi xam naa ne naar bi moom martabaam rëy na waaye ginnaaw bi ñu ni ko Cheikh Mouhamadul Fadal la moom sëñ Tuubaa loolu lépp dafay wane rek taalibe gi sëñ Baar doon dund ak cër bi am ci suñu borom lépp teewut cër boobu mu daxañ ko ci biiram waaye muure ko ak taalibe ngir orma ji mu am ci sëñ Tuubaa ñu gis ni itam ni ci ak jaxasoom ak njaboot gi boo gis daanaka cër bi mu mayoon seeblaat ngir orma ji mu am ci sëñ Tuubaa ak cofeel gi mu am ci sëñ bi tax na lépp lu bàyyi ko ci sëñ bi téye nañ ko téyin wu dëgër woo xamante ni xoolatuñ ci ay at xoolatuñ cay tolluwaay euh, seeblaat daf ko miinoon lool ba fu mu ko gis daa ko wàlliyu kajoor moo ko ak fépp ak itam taf gum ko taf ci boppam ba teel koo tudde turandoo woo xamante ni ni li ko seeblaat magi bariwut te loola lépp dafay wane rek cofeel gi am ñu gis ni itam ni àggoon na ci diggam ak sëñ Modou ci orma du sol yi dàll su jëm see ci moom du sol mbaxanaam ku ñu wax sëñ Assane Mbaw sama kër bàyyi la daan dal moo daan lëggéeyal sëñ Moussa ay dàll nee na am na boo xam ne lëggéey naay dàll yu bari indil ko sëñ Modou ndax da ci daan lëggéey commande yu baree bari ngir sëñ Modou kilifa yi mu ci bëgg a jox nee na sëñ yu xool dàll yi mu yàgg mu ni Mouhamadou Lamine bu doon sol yi dàll danaa ko jox ci dàll yi ne eh, mag ñu ne ko ah, dana soli dal kay xanaa ko dul indi fi yow waaye dana soli daal loolu lépp it sàmm orma yi sëñ Tuubaa ji rek moo tax muy doxale noonu muy dundin wu rafet woo am solo ñu gis ni itam ni mbooleem njabootam ku jigéen gépp ci soxna Fat Ja lañ yaroo ñu ci bari soxna Fat Ja leen yar te loolu itam ñu jàpp ni da doon wut lu wettili soxna Fat Ja ndax ñàkk am doom gi taxoon na bëggul ñu yëg ko ba tax li mu doon am ci ay tuut tànk jigéen yëpp foofu la leen doon yóbbu ak dabu ji itam ni la Sëñ Tuubaa doon wax ni soxna May Kabir ni ko ëllëg yomal xiyaam lépp lu waay manqué manees na la ko fii daal lu fi waay manqué manees la ko mottil waaye ëllëg yomal xiyaam moom lu fa waay manqué manees ba mu des ak taalibe bi ak taalibe fii lañ koy wute daani ko dama bëgg nga dem ci Fatiha nga jànge fa ak taalibe bi loolu itam taxoon na doomam yëpp ginnaaw Sëñ Tuubaa seere na ni soxna Faat ji am na taalibe bi mu jàpp ni kii moom mooy yarekat bi nga xamante ne ni moo war a yar ñëpp loolu itam bokk na ci bi yàlla dogalee mu dëkkaale ak boromam ci at yu teel bàyyi fi ak njaboot goo xam ne seeni at bariwut cheikh Mouhamadul Moustapha ne fi sëñ Moussa jaboote lépp sëñ Basiiru taxaw ca taxawaay bu am solo boo xamante ni loolu lépp dafay wane rek ay bokk nan lañ war a ànde ay bokk nan lañu war a taxawante ay bokk ku des gannaaw lan moo la war ci njaboot gi yooyu yëpp manees na koo jàng ci biir muy taxawaay yu am solo yoo xamante ni jamono soxla na ko ndax bari na ci waajur yuy dem yoo xamante ni la bàyyi ci njaboot gu sew bu ñu leen taxawuwut danañ mel waneen melokaan woo xamante ni nii dana jaaxal ñi xamut yoon wi ñii nan lañ sàggane ba mu mel nii te ñàkk ay taxaw rek moo leen ko teg nga gis mag ñi réussir gi ñu réussir ci taxawante ci seen biir njabootuk Cheikh Mouhamadou Lamine gi nga xam ne bi muy dem ñi ci bari seeni at bariwut waaye nga xool taxawaay bi ci mag ñi taxaw nga xam ne feeñut ci seenu bi feeñut ci seenu jàngin feeñut ci seen taxawale nu kër feeñut itam ci seen sanc ni dëkk te naka ni waroon naa fekk yooyu yëpp man caa feeñ ci kaw bu mag ñi sàgganoon ci seeni taxawaay waaye farlu nañ ca taxaw taxawaay bu am solo ñu gis ni itam ni ci yarin woow yi nga xamante ni moom la Sëñ Tuubaa yaroon mag ñooñu moom lañ yar njaboot gi nga xamante ni nii moom la leen yàlla wërsëgalal ñu nekk di dund ci noonu ci ron cheikh Mouhamadul Moustapha ña ci jàng mu dajale leen ci daara muy Usnu Maab 1920 daara ja sëñ Modou Baara nga foon woon sëñ Abdou Aziz Baara mi fa la newoon sëñ Cheikh Mbacke fa la newoon sëñ Mbacke Madina ma nga woon ca daara ja sëñ Abdou Salam moom Cheikh Mouhamadul Moustapha ma woon ca daara ja sëñ Modou Mbacke Galongal ma woon ca daara ja sëñ Abdou Karim moom sëñ Fallu muy mag muy tawub sëñ Fallu ma foon sëñ moodu Mayum sëñ Masamba itam ma ca daara ja loola itam nga gis ni ñooñee bokkoon ca daara ja damay wax ni ginnaaw bu ñu wutoo seeni i baay dana la wóor ne seen i baay da leen a ëppi at waaye gënuñu leen ndax seen i taxawaay ak seeni jëf moo moo ko firndeel kenn ku ci nekk ca place ba nga xamante ne ni wóotu na ndax damay wax ni Cheikh Mouhamadou Lamine bi muy dem ñi mu bàyyi nga xam ni sëñ Modou Baara 1910 la gën àdduna sëñ Baara dem 36. nga xam ne ci at yu néew naga ni waroon naa fekk ñu naan mbooloom sëñ baar day la ko tee bari mooy seen bàyyi daa teel a dem te bàyyi fi ay tuut tànk ndax booba mag ñëpp a ngi fi waaye seeni taxawaay ak seenu melokaan ak seen jikko tax na li fi seen bàyyi bàyyi woon téye nañ ko téye wu ñoŋ woo xamante ne ni gannaaw ba la ca dolliku moo ëpp lam fi bàyyi woon ba muy dem te loola jikko yu rafet rek moo moo moo ko waral ndax sëñ Moussa dafa daan wax ni adduna bépp ma des na leen a sol ci menn mbedd waaye mbeddum teraanga rek lay doon mbeddum teraanga rek ci nga mën a yeewe ay gor jiital leen waaye du ak wilaaya du baatin du alal joo mën a yor ba tax ñëpp foo leen ni joxoñ leen fa ñu jaar fa mbeddum teraanga rek teraanga nag la ci jiitu mooy ak yëg ndax nit loo ko mën a defal te yëgoo ko doo gis te suñu Musaa daana wax ni nit xajul ci cati baaraam koo cof mu rot lu ne mën nga koo cof am ko ba mu des doomu aadama boo cofee rek mu rot te nee soo ko yemale ñëpp mu gën laa gore moo tax daan wax ni képp ku taxaw ci mbooloo ni yéen ñëpp laa yemale joom nga ndax am na ñoo xam ne yemaluwuñ la fa kenn kon loolu itam bokk na ci taxawaay yi nga xamante ne nii daan nañ ko taxaw ci njaboot gi gis ni it bokk googee ñu bokkoon benn environnement bu njaroo jaxasoo googu yi ñu doon jaxasoo taxoon na kenn ku nekk ci ñoom xam wàccuwaay bi sa morom am ci yow donte seen i bagante demewut noonu ndax ne sëñ Moul Baara 10 sëñ Cheikh 12 sëñ Mbàkke na douze la sëñ Abdou Aziz quatorze waaye dangay ngay gis ñoom ñëpp joxante woon nañ ay cër yoo xam ne buñ dajee ci benn barab da ngay daan jàpp ni ñii li ñu magantee ëpp na loolu taxawaay yoo am solo la yoo xamante ne nii mag ñi doon nañ ko taxawee muy boole googu yi leen sëñ Moussa boole ñu bokk benn jataay boo xamee ci lañ doon sàkkoo xam-xam tax na seeni jikko niroo na tax na itam seeni cër kenn ku nekk cër bi nga sédd sa moroom ñee féete mag nangu nañoo jiitu ña war a toppee itam rafetal nañ seenu toppe loolu itam la koy war firndeel rek mooy ña doon doonu doonuñu iñaan ña waroon a jiitu itam doonu ñu bëgg àdduna loolu itam fees na bu baax a baax ci seenub ànd Cheikh Abdul Ahad ak sëñ Saliou ak sëñ Sooy bu fekk nañ leen foofu ca daara ja ñu tollee ci jàng xam-xam ak Cheikh Mouhamadul Mourtada waaye da nga gis ñoo xamante ne ni seen baay yooyu ñoo leen féete woon ak mag waaye teewul ñu jox leen cër ngir ormay Sëñ Tuubaa ci fuñ fi mën a daje rek ci barab yi dañ leen jox wàccuwaay boo xamante ni dana méngoo lool ak seen wàccuwaay ngir orma nga xamante ni moom lañ ameel Sëñ ameel ko ak jabootam ñu gis ni kon fay mel ni yar ba nga xamante ni moom la Sëñ waa yaroon mag ñooñee mag ñooñee yar boobee lañ sottiku ci seen njaboot goog yi mooy mosuñoo soxlal àdduna dara bépp juntukaay bu mos a ci seen loxo juntukaay rek lañ ko def boo xamante ni dañ koy wute ngërëmal yàlla dañ koy rafetale seeni diggante dañ koy toppante loolu moo feeñ ci seenu dund da ngay xool bi sëñ Moussa di gasraay bi Cheikh Mouhamadou Lamine daara yi tarbiya yi mu amoon yëpp dañu soxlaatul benn dong na ñëpp dem ca liggéey ba boole kook lu mu am indi boole ko waxtu wu ne muy ñëwal boppam di xam fu liggéey bi toll mooy jenn yitte rek lañu amoon te mooy bëggug sëriñ bi loola daf cay feeñ bu baax a baax bi yàlla dogalee nag Cheikh Mouhamadul Moustapha dëkkaale ak boromam ñoom njaboot goog yi ñu des fi dana ci fes lool ci seenu ànd loo xamante ni nii tey jii la ko jamono gën a soxla ndax ànd googee ñu ànd def benn bolok ka war a jiitu jiitu ña ca war a topp topp ca moo leen may fu ñu tuddee seeni waajur tudd leen te seeni yitte kawe rek moo ko moo ko waral ndax booba sëñ Mouhamadul Hafiz moo mag ci njaboot gi sëñ Cheikh waaye seenub ànd foo leen seen ñoom ngay seen ñoom ñaar ngay seenandoo waxtu wu ci ne nga leen di bàyyi xel ndax lañu waroon a làmboo ci ci xam-xam akub ak i teggin ak xam itam liñ leen bàyyeel loolu lépp dajawoon na ci ñoom ba taxawaay yu fés a yoo xamante ne nii taxaw nañ ko ci bis bii nga xamante ne nii moom lañ jublu di ashirina muharram di ñaar fukki guddi tamxarit yi sëñ Tuubaa ñibbisee ci dëkkam bii nga xamante ne nii moom la gënoon a bëgg loolu yàgg na am ci wuute ci aw déggin ñi jàpp ni dañ koo war a continuer ñi jàpp ni bis bi dañ koo war a soppi waaye ñoom ñu am ak dëgër ak way ci xam ni ki wootu moom dara waru ko lu dul sàmm liñ ko bàyya wa ma alal xalaf illa an yasuna asara salaf moo taxoon ñu dëgër ci lool eh, sax am na genn kilifa gu moom Musa wax sëñ Modou Bara ni ko bis bii ngeen ngeen ngeen taxaw rek yaag seex ni du ngeen ko bàyyi su ngeen dajeeg sëñ Tuubaa da ngeen ñàkk lu ngeen ko lay sëñ Mool Baara ni ko la tax nga toog ca ker ga gor ñiy ñàq di la jox ngay lekk boo ëllëgee foo ko layee la fa ñuy lay la suñ bis bi mu ne tey moo de moom kenn mënta wax ak moom waaye yooyu yëpp dafay wane rek yitte ju kawe ju ñu am loola ñu dox ca ba sëñ Moodu wàcc bàyyi fi njaboot gi sëñ Abdou si laxa saayu boole njabootu guy mbind yépp téye taxaw taxawaay bu dëgër boo xamante ne ni moom la war a taxaw def sëñ Cheikh muy kilifaam muy ànd bu rafet boo xamante ne ni jëmmal nañ ko ci seenu doxin ci seen jëmm jëmmal nañ ko ci seen kàddu jëmmal ko ci seen jëfin loola di lu fës loo xamante ne ni àdduna bépp mën nañ koo seere muy seen diggante ñoom ñaar ak njabootu guy mbind gépp sëñ Cheikh doon seen kilifa foofu sëñ Cheikh Moussa nekk ci sous-région bi si Abdou Aziz fekk na ko fi ndax sëñ Cheikh da daan yàgg àll waaye toujours daf daan wax ni mënta toog lu yàgg te gisut sëñ Cheikh fekk na ko Maroc fekk na ko Côte d'Ivoire te loolu lépp suuxat buumuk cofeel gu dox seen diggante rek moo moo ko waral loolu itam da cay gis rek ni yar yi ci boppam moo jeexital ci moom ndax ne mag ñi mos nañoo toog ci sëñ Moussa di wax taalibeeg sëñ Abdou Aziz waaye bañ waxee pare sëñ Maodo la mu ci duggee dañ leen da ngeen a xamul Mouhamadou Lamine ba moo tax ngeen di wax loola du ca dara xamal leen rek taalibe gi foofa rek la ko jële moom la doon te moom la doon dund moom itam taxawaay yu am solo la taxaw ba ginnaaw sëñ Cheikh itam noonu la laxasaayoo rek topp sëñ Mbàkke Madina ba bi sëñ Mbàkke Madina wàccee ab liggéey sëñ daan xariloo mi mag ci njaboot gi daal ni nag ginnaaw moom da daan ñëw tey moo fi mag jiital njabootuk daaru xuddus gépp andi teg leen ci loxol seeb Abdou ndax loolu la fi fekkoon te loolu lay suuxat waaye orma ji dañ koo dund dañ dëggal ko chef de service am na bis boo xam ne jumaada la jógee jaar Madina doon nuyu sëñ Mbàkke Madina booba koppate yu weex yu waaye fii gars yi daan sol yooyu moo xewoon moom la sol waaye faay bi tax mu fàtte ko ci boppam nuyu nuyuwaale ko sëñ Mbàkke Madina bi muy dem mu dugg cooto bi doon sofa xas kanamam nii baaraamam daj mbaxana bi mu summi ko ne mbaxana mi moom araam na mu tegeti ci boppam ndax nuyuwaale gi mu ko nuyuwaale sëñ Mbàkke Madina keroog dafa fekk sëñ Wàdd jàngkat mu jëm si woon Touba mu di ko yóbbaale suñ waat ne kon sarax ma mbaxana ma barkeeloo ko waaye dañoon da koy sànni yooyu yëpp dafay wane rek ñu naa jógee itam euh, jëm mbaam jigaan ñëw Mbàkke Kajoor bi muy dugg mu seen ci taalibe bi kenn koo xam ne day jàng wala day jàpp sëñ bi laaj lu muy def ne ñu ni ko ah eh, daa mel ni day day jàpp wala muy jàng mu ni man de li ma yor foo ma ko jëlee tafli sax musuma ko faa def tafli tafli ci biir kër sëñ Moussa musu koo def saa yu soxlaa li loolu lépp mooy orma rek ormal ki fi nekk moo tax yooyu yëpp mu doon ko bàyyi xel yooyu yëpp ay discipline la yoo xamante ni tey la ko yoon wi gën a soxla ndax loolu mooy suñu valeur te loolu la ñu yore woon loolu itam mat naa bàyyi xel bu baax a baax nga gis loolu talu yar ni mu amee solo mooy bi ñu fi desee ñoom rek ni ñu taxawoo yoon wi ak valeur ni ñu valoriser yoon wi ni ni ñu imposer seen bopp ba ñëpp di leen bàyyi xel ci wàllu col doo leen ci yëpp ci wàllu dëkkuwaay defaroon nañ seeni dëkkuwaay defar seen jikko nga xamante ne nii dénkaan ba moom lañ dundal la leen sëñ Omar Galongal dénkoon ne leen na ngeen defar seen i jëmm ba ku leen gis xeemeem leen ngeen defar seen jikko ba ku leen gis ku defar seen i dëkkuwaay ba ku fa ñëw naw leen defar seen jikko nag ba ku leen miin deetu leen mën a bay ay nit la ñoon yoo xamante ne ni saa yooy dox ba suñ borom yamale la ci ñoom la ngay rëcc mooy lu teewoon nga xamoon leen bu yàgg ndax keneen leen natt da nga fi mu doon sax bari na fi mu ni kuy xeeb nit te fekk ñi leen natt ñoo dul ay nattuwaay suñ borom moo leen jagleel loolu mooy suñ borom a leen yóbbu ci dimension bu kawee boo xamante ne ni boo leen natt ci ñooñ jamono da defee ni ñooñ jamono ay yaafus lañ fekk sax du ñuy yaafus ñi nga leen natt ñoo dul ay nattuwaay ndax dañuy ay mag yoo xamante ne ni teel nañoo ñëw jamono fekk nañ fi lenn ci cattul sëriñ bi fekk fii itam jàmbaari jooj yi nga xamante ne ni ni ko sëriñ bi yare woon noonu rek la doon la doon yare te njaboot gi jiitu ci loxo mu sonn ci ñoom itam ngir bàyyi xel ki ko batale ak njaboot gi ndax sëñ Moussa dafa daan wax ni liñ ma bataleel ak ñiñ ma bataleel nelaw xaju fi liñ ma bataleel ak ñiñ ma bataleel nelaw xaju fi loolu nag moo da doon waajal li nga xamante ne nii mooy ñëw ci kanam ñu doon ay nit ñoo xamante ne ni regg nañ mooy soxla luñ kenn dara lu jar ñuy damm seen i batiwoom ci fuñ ko wërta damm ay nit lañ ñoo xamee nit kenn mënu leen a xooqatal yàlla dong lañ defoon muy seen buur moom lañ tegoon ci seen kanam ci moom lañ doxoon jëm ñu doon ay nit yoo xamante nit ay gor lañ yoo xam nangu nañoo liggéey te li leen suñu borom di wërsëgalal doyloo nañ ko nangoon nañ ko bokk ci seen biir itam ba tax na kenn xamut woon luñ manqué ab am am daw leen boolee kenn néew doole it daw leen teggal tàggale ak kenn loolu itam bokkoon na ci seen seeni taxawaay nga gis itam ci ci ci biir taxawaay yi muy xam gi ñu xam fi fi ñu teg seen tànk mooy daawuñu jaawale sariya ak dara xamoon nañ sariya bu baax a baax doon ko di dund seen aqiqa itam seen warugar ci réew mi itam taxawoon nañ mooy nangu woon nañoo liggéey gori ay dëkk dawuñu woon nit ñi dawuñu woon ay responsabilité itam waaye dañoo bëggoon barab yoo xamante ne dañu fa fàggoo loo xamante ne ni danañ ko delloo ci njaboot gi loolu itam mat na cee bàyyi xel bu baax a baax sooy xool ci seenu fit ak seen taxawaay yooyu xool bi bi président Senghor ñëwee te ñuy ubbi forage te sëñ ni dañuy dem belal te belal bokkut ci programme bi loola da da ci xam seenu fit seblaat bi mu dikkee rek ci oto président Senghor nga xam ne protocole baa ngi toog garde protocole baa ngi toog ci buntu oto seblaat dañu ko wàccal loolu aw fit la wàccal la ko wax mu wàcc mu ni Cheikh Mbacke duggal Cheikh dugg mu ni Senghor duggal mu dugg seblaat ni ko puusal mu puus seblaat daal di dugg daal di Abdou Aziz wari na le ñu sànniwis ko ci digg bi loola aw fit dëgg ko def ndax ñooñu jamono ji bu leen fekkoon lii dana doxe nii déedéet du doxe nii ndax xamoon nañ bu baax a baax ni kenn rek a jar a ragal muy suñ borom te xamoon nañ fi ñu jëm xamoon nañ li ñuy def loola aw aw fit la woo xamante ni ni moom lañ doon doxee nga gis ni ci fit yooyu ñu doon doxe rek demee belal président yàlla da ko mu bëgg a tuur ndox mu ne daa bëgg a tuur ndox wax ko sëñ Saam du la sëñ Saam wax ko sëñ Blaat sëñ Blaat ni ko kër gi amul wanag wanag amu fi yooyu yëpp mooy bëgg ko nattu rek bëgg ko bundu xatal daal di wax saam ni ko boo fexee ba mu tuur ndox sama kër gi danga ma tooñ te tuur ndox itam wax dëgg yàlla mënu su ko denc lu yàgg waaye nee na kees seeblaat yu rëy yi nee na ci laa ko yóbbu rek bañ nee nañ dem rek mu yóbbu ko ci kees duy si duy si woom ndox yooyu fii rek ni ko sànni ko fii rek mu kii ma sotti ca mu ne ma mbaa tuuru fi ndox ma ni ko déedéet mukk xalaatu waaw waaye booba la mu jubloon rek mooy xam ne ni bokkuñu diine te wuruñu ko bàyyi muy not ci seen kaw faaw ñu wan ko seenug dëgëraay ak seenug gëm yàlla ak wéetal ko ak wan leen itam cër bi ñu am ci Sëriñ Tuubaa ndax bu seen pexe juboon ñoom duñ jut duñ ñëw jamono loolu bokk na ci see seeni taxawaay nga gis ni loola moo continuer di dox ba bii nga xamante ne nii sëñ Sidil Moxtaar ñëw na doon kilifa njaboot gi mag ci njaboot gi waa daal Xuddoos gi yëpp mobilisé wu ànd ci kilifteefu sëñ Amadul Moxtaar ñëw jox ko seen bopp mu doon doxin wu rafet woo xamante ne nii noonu la kër gi baaxoon a doxe ba tey taxawaay yi nga xamante ne nii moo ko waroon lépp ci ak bokk taxawoon taxawoon na ko taxawaay gi ko waroon ci ñàkk ak dëndal ak sàmm yooyu yëpp sëñ Sidi taxawoon na ci taxawaay bu am solo boo xamante ne ni àdduna bépp seera nañ loolu itam moom la njaboot gi fay rek ngir waxtaane loolu nag ak pénc mi ni mu rëbete kenn sañatutoon fekk kenn ci barab bi ko jéem a corriger ci dara moo tax ñuy woon kat ginnaaw bis bi bokk ñun ñëpp jot na te nun am nan loo xam ne mën nañ ko wan jamono nan waxtaani suñ mag yu baax yi ba bu ëllëgee képp ku bokk ci yaari kër yi wala keneen ku bokk ci yoon wi tey doxee na neen nga xam ni sa bakkan la ci yóbbu waaye gis nga loo mën a roy ndax ñi moom fu leer lañ taxawoon mooy joxoñub suñ borom ba rek lañ taxawoon wa anna haza si anna haza sirati mustaqiman fattabi'u ca diggu yoon walañ jaar jaaruñu ca pegg nekkuñu di comaytu ca diggu yoon walañ jaar doo leen jam ci sariya doo leen jam ci aqiqa te it ay gor lañ yoo xamante ne nii lu lew rek lañu doon dundee seen gannaaw daal mëneesu leen a rapproché ci dara mëneesu leen taasal ci dara damay wax ni su fekkonte ni dañuy tënk seenu dund damay wax ni ñoom day lëmasoo nañ perkaal xuus ci géejug deret ba jàll te dara tisu leen fa tabaarakallaa yal na yàlla seral seen i tërawaay tëraay ci fañ nekk te yokk yërmandeem ci ñoom te njaboot giñ fi bàyyi yal na suñu borom sutural suñu borom dëgëral leen ba yéene jooj yi nga xamante ne ni moom la mag ñi amoon mooy lu benn la yoon wi yéene ji mag ñi amoon mooy lu suuxat lëggéeyub sëñ Tuubaa bi li yéene ji mag ñi amoon mooy ñëpp jub di jaamu yàlla yéene joojee ngeen àggale ko ñoo leen koy ñaanal bu baax a baax yal na leen suñu borom sàmm te su borom sutural leen bi jaayi seexul xaddim boo defee nuy wàcce foofu sunu kàddu rek boo defee laneen li ci des bokk yi mottali ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa